tey nekkoon journée intégration bu 43e promotion muy nouvelle promotion bu nga xamante ne si ñoo ñëw fii nii ci ENSA donc yaakaar naa def na ans donc ENSA nekk école bu mag ci Sénégal di former ay yoo xamante si da leen di donc dans le dans le marché donc de l' agriculture ñu yëngu donc ci mbay mi di jëm donc di nekk ci tout ce qui est développement donc au niveau du Sénégal tey jii ñu amoon thème bu important na ko muy wax ci wàllu yu bees yi nga xamante ne nan la ñu def utiliser ko ci agriculture bi pour mën a développer réew bi répondre donc aux questions donc du gouvernement par rapport ak tout ce qui est sécurité alimentaire et donc mën na mën a am mbay mu mucc ayib mbay mu gaaw aussi nga xamante ne si dañu permettre ñu économiser suñu temps. tey de vraiment dama am mbégte ak euh, fierte euh, ñëw fii ci ENSA fi nga xam ne man fii lañ ma tàggate euh, ci 96 ba 2000. Euh, mu am ay sama nawle yoo xam ne man maa leen mag ci ay at euh, ñu tànn ma ne mu parrainé leen cérémonie d'intégration bu 43e promotion bi nga xam ne moom la ñu recruter ren par voie de concours man ma nekkoon nag bokk ci 15e promotion xam nga 15 ba 43 bari na tuuti macha allah donc euh, looloo tax mbégte boobu dama ko bokk ak waa 15e promotion bi yépp ñi nga xam ne ñi ngi fii ak. ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew di te liggéey yóbbu leen fa te ñu koy def ci fulla ak fayda ah, bu loolu wee weesoo ah, def nañu fi benn conférence bu am solo boo xam ne eh, kenn ci ñuy tàggat ingi élève ingénieur yi fii moom moo def présentation bi mu def ay présentation yu am solo ci xarala yu bees yi ni mu waree contribuer ci développement mu mbéy te bu ñu waxee mbay nekkul rek gàncax am na sàmm am na napp donc loolu dafa di loo xam ne dafa am solo ndax technologie numérique ci domaines yi yëpp secteur yëpp la am importance rawatina nag rawatina nag ci mbay comme ni ma ko waxee ah boo jëlee mbayu Sénégal nag ah, ñëpp xam nañu importance am ndax moom wane na ci conférence bi statistiques yi wane nañ ni boo jëlee fukki sénégalais yu ne. juróom yi dañuy yëngu ci wàllu mbay xam nga loolu xaaj bi la daanaka wante mbay lu muy lu muy lu muy lu muy génne pour euh, contribuer ci dundu sénégalais yi dafa néew par rapport ak loolu ndaxte ñun dañuy jéggaane lu bari ci lu ñuy dunde te loolu gis ngeen ni euh, euh, crise corona bi ak guerre bi am Ukraine wane na ko wane na ni am nañu ay difficulté pour ci lu ñuy dunde pour importe ko te buy yekk see fii aussi dina dina dina dina cher cheraay boo xam ne population yi dégg ngeen gouvernement gouvernement bu fi ñëw danaan damay wàññi dund bi donc loolu day wane eh, importance su mbéy ak nu ñu nu ñu dépendre ci extérieur waaw béy bi nag dafa dafa soo gisee mu sooxee noonu dafa am ay problème yu muy jàkkoonteel rawatina nag ci wàllu financement ndax mbéy dafa di loo xam ne dafa am ay risque ndax fii ñun ci taw bi lañ yaakaar mën nga euh, ji bu tawul dangay ñàkk li nga investiroon bu fekkoon nga leb bor ci banque ah, bor boobu day sooxe pour nga rembourser ko looloo tax banque yi dañuy li leen di gënal mooy ñu lebal ñi nga xam ne dañuy tabax ay kër jënd oto pour transport ndaxte secteur yooyu bariwul risque comme bay léegi nag il faut que euh, gouvernement bi am na sax ay pexe yu mu tëral mais dafa di euh, loo xam ne doyul donc il faut que gouvernement bi liggéey ak acteurs yi partenaires yi accompagner leen pour ñu def ay réformes yoo xam ne dina tax réformes yooyu nag mun na sax dépasser suñuy frontière ndax xam ngeen ne Sénégal dafa bokk ci kuréel bu ñu wax euh, UEMOA te banque centrale bi daf cee am loxo ci wàllu wàllu woowu contrôle opération banque yi bor yi ñuy joxe. donc il faut que ñu tenir compte ci spécificité mbéy ak risques yi pour ñu defal leen système de régulation boo xam ne moom mooy gën a mën a ñoŋal wàllu bor yi ñuy joxe lu ko mooy rek dañuy nekk fii rek lu tubaab di wax un éternel recommencement jërëjëf. docteur Fatimata Bintou Hassedine Diouf fii laa jógee ENSA maa ngi 19e promotion tey nag dama fi ñëw di teewal euh, na Seynabou Diouf. mi nga xamante ni que mooy marraine 43e promotion bi Ndeye Seynabou Diouf euh, choix bi nga xamante ni liñ ko tànn biñ ko tànn dafa nekk euh, tànn bi nga xamante ni mën nañ ko comprendre ndax dafa nekk quelqu'un ku nga xamante ni que xam nañ ko si liggéeyam elle dafa compétente mën na li muy def xam na ko dafa généreuse daf ko daf daf ko mën a joxe vraiment avec une grande facilité te dafa nekk koo xamante ni du dellu ginnaaw pour moom problème amul ay solution rek moo am loo ko tegal du nelaw tant que trouvé wul nu ñuy résoudre euh, contrainte boobu wala nu ñu koy lever donc liñ ko tànn tey dañ si kontaan trop di ko ci jaajëfal te moom la tànn waaye ñun ñëpp lañ tànn parce que ENSA fii ñun ñoo fi nekkandoo woon nekk une famille et ça fait plus de vingt ans ëpp na lu mat euh, vingt ans ba léegi taqaleekuñ te dina continuer incha allah jusqu'à la fin de nos toujours euh, entre euh, thématique bi nga xamante ni moom lañ développé muy euh, xarala yu bees yi loolu moom mën nañ si wax lu bari liñ si mën a wax rek mooy dafa nekk loo xamante ni dañ ko soxla waxtu bii ñu toll ci agriculture Sénégal wante ñu ngi wax li ñuy dundal dinañu bay li nga xamante ni moom la ñuy dundee ba mu mat ba nga xamante ni dootuñu jéggaane euh, li ñuy lekk si bitim réew parce que Sénégal dafay dépendre lu ëpp si bitim réew te loolu soo ko waxee fii ñu toll xam nañ ne que ñi nga xamante ne ñooy jëfandikoo bay bi dañoo xaw a màgget te seeni doom yi nga xamante ne ñoo leen waroon toppale dañu bëgg intéressé wu leen lu ci ëpp mais jeunes ingénieurs yi lool kay lañ leen di encouragé si salle bi sànq wax naa leen ko léegi dama leen koy waxaat agronomie yi si terrain ba foofu lañ leen soxlawee te yaakaar naa ni que dégg nañ liñ la wax ñun ñii sax nga xam te ñooy seen i mag si tool yi lañ ñu soxlawee wala boog si yeneen activité connexe yi nga xamante ni que dina permettre de booster vraiment cette souveraineté alimentaire là. jigéen waaw dëgg la jigéen ñi nag moom ngàcce ngaalaama parce que li ñu seetlu mooy suñu lebalee producteurs yi dañuy seetlu ni que jigéen ñi ñoom dinañ fay seen bor yëpp fekk ni que si góor ñi dina des te loolu am na plusieurs raisons yu koy expliquer di ci am solo mooy projet et programme yi nga xamante ni ñu ngi koy tëgg di ci liggéey ak euh, producteurs yi dafa am ay pourcentage yi nga xamante ni dañuy def lu ñuy wax euh, gënale discrimination positive dañuy ngënale participation jigéen ñi dinañ wax toujours euh, trente pour cent de femmes euh, ma juróom benn fukk pour cent nga xamante ni jigéen ñi lañ koy jegale te am na ay projet nga xamante ne dañuy dem ba ci gën cee comme fu mu toll nii maa ngi coordonné benn projet bi nga xamante ni que Banque africaine de développement moo ko financé euh, mi ngi amee fële ñu ngi koy doxalee fële sa Casamance. inclusion digitale financière boobu dañuy interconnecter institutions financière yi ak euh, producteurs yi pour vraiment faciliter l'accès au finances et la commercialisation boobu noonu dañoo dem ba 60 pour cent juróom benn fukk jigéen ñoom ñoom ñooy euh, pour cent ñoom ñooy bénéficier de ce de ces financements donc ñu ngi siy liggéey bu gën a yaatu te xam naa ne dina gën a yokk si si kanam incha allah. ok kon man maa ngi tudd Mahécor Diouf di jàngale fi ENSA. Euh, école nationale supérieure d'agriculture ci département bu ñëwee génie rural man damay yëngu ci lépp li nga xamante ne mooy wàllum ndox ak wàllum irrigation ak euh, xarale yu bees yi nga xam ne moom la ñuy utiliser agriculture. tey dañu doon waxtaan ak xale yi nga xamante ni ñoom ñoo jàngee fii ENSA ci seen journée d'intégration mooy promo bi nga xamante ne ñoom ñoo duggalante ci agriculture ci mbay ak xarale yu bees yi nuñ ko mën a utiliser pour jàppale mbay mi. xale yi di wan nañ leen exactement fuñ tollu fuñ ne nii ci agriculture bi ak xaral yu bees yi nga xam ne ñoo fi am comme par exemple boo jëlee drone drone mooy maanaam appareil yooyu nga xam dañuy naaw lan nan nga ko mën a utiliser ci mbay mi. boo jëlee appareil yooyu noonu mën nga ci jël ay photo yoo xamante ne photo yooyu noonu day am lu ñuy woowee localisation GPS GPS loolu di lay permettre nga def liggéey bi nga xam ne moom la topographie doon def ak machine am loolu photo bi rek lay envoyé parce que appareil bi day naaw ci kaw photo carrément euh, li nekk ci suuf. pour nga xam ndox mi fan la war a jaar ak nan lay defee sama aménagement. am na machine yoo xamante ne tey boo demee ci vallée fleuve Sénégal fale ne zone Saint-Louis bi appareil yooyu dañ koy utiliser loolu dalay lay booy defar sa tool bi nga am nga xamante ne euh, tool bi du sutante appareil boobu noonu ay ondes rajo lay envoyé maanaam machine bi day daw mais day am appareil boo xam mooy taxaw moo koy wax ne fii ak fii ak fii ngay tourné du dootul nit moo koy wax ne lii ngay def nit bi day day réglé rek lu des appareil bi moo koy def. dem nañ aussi ci caam gi aussi parce que sànq nii ci bi ñuy partagé am na koo xamante ne na ci li muy liggéey de après boo xam ne da koy def ci jur gi nga xamante ne tey jii jur gi fu muy dem day xam fu muy nekk loolu daal mooy li nga xam li nga xamante moom la ñu doon partagé xale yi tey euh, ci cérémonie bi jàngeen ngeen jëf.